Euh, man nag ba ma nekkee woon ci ci boppu ministère bi dama doon privilégier concertation euh, dama doon toujours di waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy importateurs yi ñuy suivre ensemble marché bi Euh, loolu da doon tax xëy na même bu fekkente ne dafay am jafe-jafe jafe-jafe bi du du yàgg rapidement ñu ñu ñu solde ko boo ju fàttali ko l'année dernière ci période bi à près mois d'août bi ci la ñu amee woon jafe-jafe yu yu mel noonu mais grâce au travail bi nga xamante ne defoon nañ ko ak euh, ñii di commerçant yi euh, rapidement solution bi ñu ñu trouvé ko donc li ñu mëntul wax rek mooy il faut que ñu privilégier concertation avec le commerçant des importateurs ndax nag ñoom ñooy jëli euh, produit bi waaye ñoom it ñooy miser seeni i seen i seen seen xaalis. un de de de concertation ci ci secteur bi. Euh, non damay wax man li nga xamante ne moom laa doon moom laa doon def la ca des nag moom wax dëgg yàlla peut-être euh, ñi nekk ci secteur bi ñoom ñoo ko mën a wax mais je dis man méthode bi nga xam ne moom laa doon utiliser et di privilégier toujours la concertation avec les acteurs. mais dañu euh, ne on a assez d'oignons Euh, au niveau local mhm. pour alimenter marché bi euh, comment expliquer que suñu euh, consommation suñu production locale mën a couvrir les besoins de consommation et puis on ressent encore le besoin d'aller euh, importer de de, de l'oignon en Égypte ak yeneen réew yi waaw Maïmouna effectivement boo xoolee li ñuy produire oignon ci Sénégal day satisfaire suñu besoins yi ndax suñu production locale d'oignon dépassé na les quatre cent mille tonnes et alors que xëy na ay trois cent mille tonnes bu ko amoon rek mënoon na euh, suffire pour ñun suñu suñu consommation mais problème bi mooy xam nga oignon euh, produit agricole la produit agricole euh, bu wowul pour nga conserver ko dafay dafay jafe e donc suñu pro béykat yi dañu am euh, jafe-jafe ci wàllum infrastructure de stockage ñàkk infrastructure de stockage boobu nag moom moo waral situation bi ñu nekk donc euh, il faut nécessairement que gouvernement bi trouver une solution pour ñu am ay infrastructure de stockage yu doy ndax xaalis bi nga xamante ne tey ñu ngi koy utiliser euh, di importer produit xajoon na si suñu ak producteurs yi